Ousmane Sonko du yàgg dara mu génn ci prison bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne bi moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moo ko yëkkati ni ki léegi eh, ci këram la doon amale benn ndaje ak taskatu xabaar yi moom leader bu coalition nekkal fi askan wi kàddu yi la yëkkati. bu fekkente ni tey Macky Sall accepté na ci proposition yi nga xamante ni am na ay kilifa yu ko def ban tàmbali libéré démb ay nit yuñ bàyyi. te leen doon tuumaal lu garaaw tuuma la woon ak ñun war a bàyyi tey ak ñun war a bàyyi suba ak semaine bii ñu war a bàyyi Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye loolu négociation moo ko man mais xeex mënu ko lam waxoon daal mooy balaa génn moom ci kaso bi dana ñu bàyyi ñi nga xam ne leen a jàpp deful dara te àndoon ñoom loolu moo waral moom day toog xaar ban génn ñee ba nopp mu doog a génn parce que mënul nekk njiit bu pare mujj dugg pare njëkk génn. Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly gannaaw ba mu yëkkate yi la kàddu teg na ci itam di rafetlu décision bi nga xamante moo bàyyeekoo ci conseil constitutionnel mi daal di kase décret bi nga xamante ne bii Macky Sall jëloon na ko ngir aj élection yi waroon amal atum 2024 ko le 25 février moom nag ñaari date la jàpp ne bu ñu ko defee dinañu amal élection yu mucc ayib fii ci Sénégal. bi dafa am ni yi bu ñu koy def dafa a am a diir. approchement te moom yoonam nekku si dafay considérer ni maanaam campagne électorale bi bi nga xamante ni tàmbali woon nan rek ci la campagne bi tàmbali kon bisu le 25 boobu noonu mënoon naa nekk élection yi wala bu ñu ko defee le 10 av mars dana mën dana baax waa wala déet kooku interprétation lay doon. bu fekkente ni ñun leader politique yi nga xamante ni ñun ñoo war a waxtaan ba jàpp date le 10 wala le 3 mars ñaari date yooyu bu ñu rëccee élection du am Sénégal fii ak le 2 avril. ci ay kàddoom moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly jot naa sax addu ci li nga xamante ne moo ñeel manifestation yi faral di am ci diwaanu Sénégal sàkku na nag ci askan wi ñu daal di moytandiku di bokk ci yooyu yooyu les manifestation ndaxte jàpp na ne kilifa yi faral di woote seen doom duñ ci bokk wante mu ngay woote itam ne bépp nitum politique na moytandiku itam di sàkku ci ndaw ñi ñuy dem ci tëli bi di yàq li nga xamante ne bi mooy alalu askan wi